بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله عن برزاق المختوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني شريف رضي الله تعالى عنه السلام عليكم ñi ngi dellu siwaat di ziyaare mbokk yu tedd yépp te di leen ndokkeel ci waxtu bu tedd bii di waxtu aljumaa waaye dellu si di sant yàlla ci ngëne li nga xam ni moom la ñu defal ci boole bi mu ñu booleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla bi mu bëggee defaral jullit yi kado boo xam ni ëllëg danañ ko seede ca àllaaxira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la leen wàcceel la leen wàcceel moo tax mu ni laxat jaakum rasulun min anfusikum loolu fa la yërmande yàlla tollu mu fexe rek xëy wax ni yónni na yonent daldi koy génne ci biir bani aadam te ñépp xam nañ ni yàlla messager bu nekk am na ko waaw kon su ko neexoon mu yónni beneen mbindéef su ko neexoon mu créer beneen xeet su ko neexoon mu tànn ci beneen univers beneen être mu envoyé ko waaye mu tànn ci biir bani aadam waaw waaye tànn aussi ki ci gën gën ci mbindeef yépp te mu di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil muminina raufun rahim su ko defee mu ni yi ngeen soxla woon yépp ci yi nga xam ni moo leen di jëriñ nee na dëxëñ naa ko ci dënnu yonent bi waaw waaye mu waxit ni manquement yi ngeen am yépp te ngeen di wut ku leen mottali mën ngeen mottali ko ci moom waaye mu ni jëf yi ngeen di jëf yépp jëme ko ci manit te bëgg ma nangu ko su ngeen ko ci jiitalee rek danaa leen ko nangul waaw su ko defee kon yonent bi di kàddu gu rëy ci bani aadam waaye aussi di kàddu gu rëy ci mbindeef yi looloo tax yàlla yërmandeem yaatu na waaye yërmandeem la ca ëpp solo bi mu koy transmettre mbindeef pour mu wane ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko transmettre pour mu wane yërmandeem nag ndax moo tax mu yónni ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin su ko defee yërmande boobu rek la jaam mën a yaakaar yërmande boobu la jaam mën a yaakaar yàlla kenn mënul yaakaar sa jëf kenn mënul yaakaar sa jëf ëllëg ci kanamam waaw yàlla kenn mënul yaakaar sa jëf ëllëg ci kanamam li ngay yaakaar daal mooy jëf lu rafet li ci des nga ñaan mu mottalikoo yërmande yàlla waaw ndax lim la defal moo tax lim la defal moom yàlla moo tax waaw moo tax kenn mënul yaakaar sa jëf ëllëg ci kanam waaw li ngay yaakaar daal mooy rek nga jëf lu rafet waaw ba noppi nag daal di mottalikoo yërmandeem loolu nga mën a yaakaar ndax su ko defee yàlla li fi indi mbindeef bi fii ci àdduna sababam la moom borom bi waaw kon mbindeef bi sababul ñëwam waaye itam yàlla fexe na ba sabab bi yépp mu tënku ko ci benn xaqiqa te mooy wax na ni wa ma xalaqtul jinna wal ins illa li yaabuduni waaw mu ni binduma nit ak jinne lu dul ngir ñu jàmm waaw su ko defee kon jaamu yàlla moo nu fi indi jaamu yàlla moo nu fi indi waaye itam nag borom bi borom bi fexe ba indi koo xam ni lépp lu ñu koy jaamu bu ko ci xoolee rek nangu ko te moo di yonent bi bu ko ci xoolee rek nangu ko loo tax nag ñu wax ni jaam moom mënul yaakaar mukk jëfam ci kanamu borom bi xanaa mën na jëf lu rafet nag te yaakaar nag yërmande yàlla waaw ndax li ko yàlla defal moo tax li ko yàlla defal moo tax te yàlla buur bu juste la moo tax mu ni alaysa allahu bi ahkamil hakimin waaw laaj la alaysa allahu bi ahkamil hakimin waaw nga tontu ni balaa waaw daal di dëggal ni moom yàlla daal mooy le meilleur des juges waaw waaw mooy le meilleur des juges moom borom bi li ko ko def nag du constitution rek bu mu teg ci wetam wala texte bu mu teg ci wetam ndax moom soxlawul constitution soxlawul texte c'est tout simplement le créateur moom mu bind waaw te ku bind rek sañ waaw yàlla moom moo bind te ku bind rek sañ waaw moo tax ñépp ay jaamam lañ waaye bu laajee ni ndax moom du mooy le meilleur des juges alaysa allahu bi ahkamil hakimin waaw yow la nga mën rek mooy dëggal ko ca balaa dëggal ko rek nga mën ndax moom moo bind te ku bind rek sañ su ko defee nga gis ni kon mbooloom lu yàlla seq ak mbindeef bi def na ko ba def lu ko ëpp moo tax ñu ni kenn mënul yaakaar rek jëf jëf ëllëg xanaa jëf ju rafet waaye nag yërmandeem ngay yaakaar waaw yërmandeem ngay yaakaar waaw moo tax nitu yàlla yu mag yépp kenn ñaanu ci yàlla di la àtte ci sa jëf ndax boo ko ñaanee rek da nga gis ni koon yow sa jëf rëy na te da nga naw sa jëf ñoom ñépp dañu ñaan yàlla àtte leen ci yërmandeem waaw nangul bi leen ko yàlla di nangul moo tax mu dalal seen xel waaw dalal seen xel dalal seen xol wan leen ni ay xaritam lañ wan leen ni ay xaritam lañu te yàlla ku xaritoog moom rek sa xel war na dal waaw ndax kenn amul ku dul moom waaw ndax mu bind ñépp su ko defee itam nga gis ni di nga jàmbaare ci jaamu yàlla wala nga gis ko ci jàmbaare waaw koo xam ni mën nga natt ni dund na téeméeri at waaw téeméeri atam yépp dafa jàmbaare ci jaamu yàlla waaw waaye itam nga dem ci bàmmeelam ñu wax la ni suul nañ ko it téeméeri at waaw soo nattee ni kon bés bu nekk ban ko suulee rek su doon bés bu nekk la mu jëfoon ci àdduna la ko yàlla di fay te suul nañ ko téeméeri at kon jeexal na la mu jëfa li fa des mooy yërmande yàlla li fa des mooy yërmande yàlla waaw moo tax yàlla ci yërmandeem rek la jaam mënee mucc yàlla ci yërmandeem rek la jaam mënee mucc waaw parce que mooy jëriñ mooy jëriñ waaw moom ci yërmandeem rek la jaam mënee mucc waaw te su ko defee itam li mu digle moom borom bi te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko lenn li itam alquran indi ko moom loolu la gëm ni nit moom la war a def constitution waaw moom borom bi loolu la gëm ni nit moom la war a def constitution ndax it na muy àtte ëllëg du am benn point boo xam ni benn point boo xam ni dana ni point bii kat dafa ko fàtte walla point bii waxoon na ko waaye defatu ko déedéet waaw dana dajale ñépp ci place àtti leen te am na temps bi waaw am na temps bi moom borom bi waaw am na temps bi ndax li ko dimbali ba mu am temps bi mooy moom dafa sukkandikuwul ci temps waaw su ko defee nag nit ñi ni yàgg na nit ñi ni taxawaay bi yàgg na nit ñi ni yowmal xiyam la muy diire cinquante mille ans waaw nit ñi ni taxawaay bi kenn mënatu ko natt waaw waaye fekk ne yàlla moom comme amul temps moom dafay jàpp ni rek lii lu war la waaw dafay jàpp ni taxawaay bi lu war la waaw ñépp mu dajale leen ñëpp mu dajale leen ba noppi nag soo koy wane soo koy wane certitude waaw séddale ci yaqin waaw séddale ci yaqin moom yàlla waaw jël ki nga xam ni dund na ba génn àdduna te ci pauvreté la dund amul dërëm dendale kaat koo xam ni milliardaire la waaw wala sax muy multimilliardaire waaw ñoom ñëpp mu àtte ndoo leen te teg ko ci alxuraan teg ko ci bëgg-bëggam moom borom bi te ka ci bëgg-bëggam moom borom bi ak ndàmmee fa jël koo xam ni nekk nga président waaw yore pouvoir temporel àttekat koo xam ni manœuvre la woon ba muy dund waaw dendale leen waaw loolu yëpp yoon yàlla ne ko waaw su ko defee nag ñi nga xam ni ñoom lay ñoom lay couronné foofu mooy ñi nga xam ni wax na ni ñoom lay keral waaw wax na ni ñoom lay keral parce que bés boobu ker du am mooy yowmal qiyam su ko defee nag comme ker du am yàlla moo créé moom ker waaw ker boo xam ni ker gu sedd la waaw ci bis bu tàng na ci bis bu tàng waaw yàlla créé ci ker gu sedd waaw ndax lii nuy tuddee mbóoya xam naa nun sax dañ ko tuddee mbóoya rek waaye fekk na des na nekk mbóoya dëgg ndax boo nekkee ci dëkk bu mel ni ndar munoo xàmme mbooya boo bëggee xàmme mbooya da ngay dem ci dëkk yu mel ni fuuta dox ba ci biir àll waaw di nga xam mbooya lan la waaye fii moom munoo ko xàmmee ndax bu tàngee tuuti wala ngay jooytu tàngaay nga gis ni sedd na waaye bu dee dëkk yi tàng ba nga xam ni dañuy fanaan ci biti ñoom boo leen laajee luy mbooya daañ la ko wax waaw su ko defee nag mbooya mu metti moo xam ni kenn mësul gis mbooye mu mel noonu ci àdduna waaw moom la yàlla di indi bu yomal xiyam tàmbale te mbooye moomu kat lu ci yéeme mooy da nga dul am fooy jëndee glace bay naan ndox mu sedd amul moom lay indi waaw bu ñu dekkee rek mu indi mbooye waaw indi mbooye moo xam ni kenn mësul gis mbooye mu ni mel waaw mbooye moo xam ni day ànd ak jant boo xam ni boo yëkkatee sa loxo sax da nga koy laal waaw da nga koy laal moo tax mu ni yaa ayuha nnaas taqu rabbakum alladi taqu rabbakum inna zalzalata shaa'ata sayun azim waaw mu ni yéen nit ñi na ngeen ragal na ngeen ragal seen borom ñu ni lu tax mu ni am na bis bu bëri yëngu-yëngu buy ñëw waaw yaa ayuha nnaasu taqu rabbakum inna zalzalata zalzalata shaa'ata sayun azim waaw mu ni am na bis bu bari yëngu-yëngu buy ñëw waaw su ko defee nag bis bu bari yëngu-yëngu boobu mooy la mu wax ci iza zulzilatil ardu zilzalaha waaw mooy la mu wax ci iza zulzilatil ardu zilzalaha wa axrajatil ardu asqalaha waaw mooy bis bi nga xam ni dina yëngal suuf yëngal boo xam ni tremblement de terre bu kenn mësul gis lay doon ba noppi xar ko ba noppi xar ko léegi nag ngay laaj yow lan mooy sa ndénkaane ndax bis boobu ñëpp fa jëm muy sa ndénkaane mooy nga fexe am lanoo tuddee attaqwa waaw taqu rabbakum inna zalzalata shaa'ati sayun azim waaw nee na na nga fexe koon ba ragal sa borom ndax bis boobu mënoo yóbbaale lu dul lanoo tuddee attaqwa te mooy ragal yàlla waaw moo tax lu jar di bàyyi xel waaw moo tax lu jar di bàyyi xel waaye gis nga mbooye bu metti lay indi bu ñuy dekk yowmal qiyam mu indi mbooye moo xam ni doo gis foo ñaane ndox moo naan waaw te boo nii nii sa loxo kat laal jant bi bu mbooye ma demee ba nga defe ni mbooye ma dem na lëndëm dugg si waaw lëndëm boo xam ni waaw mosoo gis lëndëm bu mel noonu lëndëm boo xam ni moo moo raw guddi wax set waaw moo raw guddi wax set guddi goo xam ni boo jëloon sa baaraam sax def ko nii sa wetu bët doo seen sa baaraam ndax lëndëm su ko defee nag lëndëm bi bu ñëwee ca la ñuy xàmmee ñi am leer waaw loolu la yàlla utiliser pour ñu xàmme ñi am leer day indi lëndëm pour ñu mën a xàmme ñi am leer waaw ñi am leer ñu xàmme leen ñi mën niitu ñu xàmme leen ñi mënul niitu it ñu xàmme leen moo tax muy indi lëndëm bu tar waaw indi lëndëm bu tar ba noppi nag jekki saa dissipé yépp waaw bàyyi fa tàngoor bi dévoiler jahannam soogay nag commencé àtteem soogay commencé àtteem ku ci nekk rek mu xool waaw ñan lay keral ndax moom moom ker gi waaw moom moom ker gi te bisam la itam nag foog ñu nangul ko ko bisam la foog ñu nangul ko ko ndax ku ko ko nangul li li tam pexe du am waaw kon nangu nangu rek moo fi am solo waaw nangu rek moo fi am solo day sànq waaw su ko defee nag nga gis kuréelu nit ña gis kuréelu jinne ya kuréelu malaayika yi waaw ku ci nekk ak lañ la dénk ku ci nekk ak lañu la dénk waaw waaye fekk na itam li ngay dalalee sa xel dëgg mooy amul kenn ku fa mës a ñëw te fekk na yàlla avertiru la woon à l'avance waaw amul kenn ku fa mës a ñëw te fekk yàlla yabalul woon yonent yonent bi waar la wax la dëgg-dëgg lan lan lan lay doon bés boobu ak bés boobu na muy demee waaw kon ñëpp yàlla yabaloon na ci ñoom xeet yëpp ay yonent waaw yonent yi ñëw wax leen waaye yonent yu bari dañ leen weddi dafa yonent yi jógee yàlla jël ñi leen doon jox leen xam-xam bi pour ñu tasaare ko ñu tasaare waaye ñoom itam ñu bari weddi leen waaw waaye yàlla moom di xaar rek xam ne am na bés waaye bu bés boobu ñëwee nag ba mu dévoiler la muy dévoiler su boobaa mu xam ni réccu amatul waaw parce que réccu mënatul nekk su xasee ba dévoiler la muy dévoiler réccu mënatul nekk amatul lu fay jëriñ waaw nee na dara dootu fa jëriñ xanaa xol bu sell nee na xol bu sell rek fay jëriñ waaw ki nekkoon président réew nangam nguuram nga dootu ko jëriñ dara waaw ki nekkoon ministre nangam loolu dootu ko jëriñ dara waaw ki nekkoon itam al amee alal gu dul jeex alal ji du ko jëriñ dara ki amoon njaboot gu dul jeex njaboot gi du ko jëriñ dara waaw la lay jëriñ dëgg daal mooy jëf ju rafet ak xol bu sell te jëf bu rafet nag bu ko yàlla waxee mooy jëf boo xam ni soo ko jëfee moom mu nangu ko loolu la ñuy tuddee jëf bu rafet mooy jëf bu yàlla nangu waaw jëf bu yàlla nangu loolu la ñuy tuddee jëf ju rafet waaw su ko defee loolu mooy jëriñ loolu mooy jëriñ nag waaw keram nga ñëpp bëgg ca muuru ca bés boobu waaw ku nekk bëgg muuru ca ker ga waaye gis nga juróom-ñaar ya muy keral ñaar ya mu jiital rek doy na jàngal waaw benn ba ca jiitu mooy imam bu màndu waaw beneen bi ci topp mooy xale boo xam ne dafa màggee ci jaamu yàlla waaw ñaar yooyu rek doy na jàngal waaw xam nga nag fii boo ne imam bu màndu ñëpp seen xel ca jàkka ja lay dem te xamuñu ni imam mooy kiy jiite rek waaw kiy jiite entreprise ba kiy jiite réew mi kiy jiite daara ja kiy jiite tool ya kooku imam la kii jiite la waaw comme nun nag xamuñu luy imam boo nee imam rek xel yëpp ma ngay dem ca jàkk yi waaw bu yàlla ne imam bu maandu njiit bu maandu moo ko tax muy wax ndax xam na ni boo nekkee njiit te maandu woo rek la nga jiite boo moytuwul dana tas te itam xam na nga nekk njiit ba noppi maandu it dafay jafe waaw lu jafe la lu jafe la boo nekkee njiit ba noppi maandu waaw ndax yaay jiite nga ni kenn du la corriger yaay corriger nit ñi léegi boo maanduwul rek société bi sa gannaaw yépp nga xam ni ñoo wékk woon ci yow muy entreprise ba muy gouvernement ba muy tool ya muy jàkka ja dafay jaxasoo waaw boo mànduwul rek loolu jaxasoo moo tax mu ni ku muy njëkk keral mooy imam bu mànd waaw muy njiit bu mànd waaw mu concerné que jiite entreprise concerné que jiite tool ya amee ay manœuvre concerné que jiite kër ga concerné que jiite jàkka ja concerné ku jiite lu ne mu ni boo màndoo ba ñu seede ni màndu ga nee na buy keral boole la ci waaw waaw boo màndoo nag ba ñu seede ni màndu ga kuy seede ni màndu ga mooy borom bi moo koy seede du nit ñi waaw du nit ñi ñoo koy seede waaw borom bi moo koy seede waaw mooy boo doxalee rek ni mu bëgg nga doxale boo doxalee rek ni mu bëgg nga doxale lu am solo la waaw boo doxalee ni mu bëgg nga doxale lu am solo la waaw su ko defee mu ni maandu ga moom bu ko seedee rek jeex na moom bu ko seedee rek jeex na waaw bu ko seedee rek jeex na seetal Umar mës na ci am njàngat bu am solo ci digganteem ak Aliyu waaw ndax Umar ñëpp xam nañu bi mu nekkee amirul muminin ni mu meloon waaw te mooy Umar pas-pasam foo ko natt weesu na ko foo natt volonté Umar rek weesu na ko waaw te itam dafa bëggoon la tubaab di tuddee rigueur waaw rigueur Umar balaa daan taxaw di di jiitu julli ci dana wër sàppe bi di xool kan la baaraamu tànkam génn ak kan la baaraamu tànkam dugg tànk sàppe bi jubul jubul kocc du jiite waaw dana xool sàppe bu njëkk bi xool sàppe bi ci topp waaw mujj na dem ba léeg-léeg yatam boobu sax lay dóor nga xam ne da ngay moytu sa baaraam balaa mu koy tëccaale su fekkee da nga génne sa tànk waaw ñu xam ko ci mu am bis Alioune ni ko ah boo xasee ba jiite day xelal Umar Alioune ni ko boo xasee ba jiite dafa am yu bari da nga ko war a wàññi mu ni ko lu tax mu ni ko parce que ñii sa gannaaw yëpp di communauté musulmane bi su ñu demee ba noonoo la rek ba moytuwul sa nguur yàqu Umar ni ko dëgg la waaye nag comme aw ma nguur kon gisuma luy yàqu ndax aw ma nguur waaw mu ni ko dëgg la waaye comme aw ma nguur rek gisuma luy yàqu Ali ni ko yaay amirul muminin mu ni ko waaw waaye ñun ñi ngi fi toogee ci barke yonente bi mu ni ko kon li nu toog nii ñi ngi ko toogee ci barke yonent bi waaw kon nguur gi ba léegi nguuru yàlla la waaw te nguuru yàlla na kenn mënu ko yàq waaye àllin def ci njàggat bu rëy àllin def ci njàggat bu rëy ndax boobu àllin dafa bëggoon léeg-léeg Umar négocier tuuti waaw yi muy def mu wàññi ko tuuti ndax dégg na jullit yu bari commencé nañ di wax ci rigueur bi mu indi waaw waaye Umar ni ko aw ma nguur waaw Umar ni ko aw ma nguur ni ko ñun lii nu doon ci barke yonent bi la kon ba léegi nguuru yàlla te nguuru yàlla kenn mënu ko yàq waaw waaye gis nga yonent bi ci sagesse am waaw gis nga yonent bi ci sagesse am guddi gi Umar dafa tëdd rek gént yonent bi bi mu géntee yonent bi yonent bi ni ko fekke nga may doxal waaw yonent bi ni ko fekke nga may doxal nga gis man maa yonent yàlla yàlla dénk ma lépp waaw te gis nga ni ma daan def bu ma xamee ni kii lii dana ko frustré rek danaa xool nan laa koy apaiser waaw Umar xëy suba woo Alioune mu ñëw mu ni ko ah la nga ma waxoon Mouhamad tontu nañu bég waaw mu ni ko lu mu wax mu ni mooy nee na naa dégg sa recommandation nee na naa dégg sa recommandation nee na naa jubal waaye nag naa xool nu may doxalee jullit yi waaw muy lu am solo muy lu am solo moo tax ñoom seen déggoo seen déggoo kenn mënu ko woon nag. waaye gis nga ni jamono yàqoo léegi boo demee ñoom ku ne tasaare na leen waaw gis nga ni jamono yàqoo te dañu déggoo woon waaw waaye léegi boo demee jamono ji te ñuy tuddee seen bopp jullit kat moo lay jaaxal tasaare nañ leen lu ne waaw waaw bala nga koy xam léegi demal Iran waaw wala nga dem ca Karbala wala nga dem ca Najaf waaw nga toog léegi nga waxtaan ak chiit yi waaw nga dégg nu waxal la ci Umar loo xam ni boo doon julli sax da ngay jóg dem sa yoon waxal la ci Ababacar loo xam ni waxal la ci Ousmane loo xam ni te li ñuy wax yëpp dara amu ci kan li am dëgg-dëgg mooy ni diine ji benn la ñoom seen ànd ànd bu dëgëroon la ñi jéem a leen di jaxaseeg di tas yëpp mooy ñi nga xam ne mënuñu interpréter islam fekke wuñu histoire ba noppi bëgg raconter histoire loolu problème la fekke wu histoire ba noppi bëgg raconter histoire waaw su ko defee ñu wax la ca lu ne. Umar nii la mel Umar nangam ma ni Umar de nunu mënta wax la mel moom ba mu duggee ci diine ji la diine ji am jàmm waaw waaw ba mu duggee ci diine ji ba mu ñëwee intervenir laaj ni li ngeen di nodde lu mu doon ñu ni ko lii de mooy genre lanoo tuddee tax waaw dañuy nodd ndax comme taluñu xeex te yéeféer yi fu ñu dégg turu yàlla jógati te baree guñu moo tax ñuy def ni mu ni xanaa du dëgg ngeen di woote ñu ni ko dëgg la mu toj tax bi ni yooxul waaw ni yooxu leen nodd keroog ba ñu yooxoo nodd yéeféer ya génn yépp daw si naan ñu nga jëm songi kay nodd dañu gestu daw ni Umar moo fa taxaw te moo ngeeg jaaseel ñëpp arrière daw waaw ñëpp arrière dellu gannaaw waaw ma ni kon moom la mu représenté ci diine kenn xamul na mu toll waaw kenn xamul na mu toll daan na ni ñëw xare junne yi yéeféer taxaw waaw Umar wàññi ni res leen ñeneen ñi te bàyyi maag ñetti téeméer te ñetti téeméer ya mu wax yépp kat da dana leen escanté waaw moo tax ñooñu la ñu la ñu la ñu amoon lu la ñoo tuddee rek l'art de combattre man dama jàpp ni seen volonté moo dem ba yàlla def ci ñoom loo xam nit ordinaire mënu ko waaw Umar daan na xeex ñetti téeméeri nit yu ngànnaayoo ñëpp mu daaneel la waaw te demal jël koo xam ni tey jii dañ ne ci art martial fi mu ci toll kenn xamul na mel nga jox ko ñaari ñeenti nit yu gànnaayoo rek léegi ñu escanté su ko defee mu ni ñun ko jox ko ëpp rawatina ñetti téeméeri nit waaw ñooñu ay jàmbaar lañ waaw te liñ daan xeex yëpp turu yàlla rek a tax waaw moo tax bu ma dégg ku leen critiqué ma ni yow boo demoon fi nu dem waxuma li nu réaliser nga réaliser ko waaye genn wàllam sax doo ko def waaw genn wàllam sax doo ko def waaw te itam nag yàlla sax nee na sax ñoo ñooy ñu dëgg lil fuqaraa il muhajirin allazina uxriju min diyarihim wa amwalihim yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika humu sadiqun la wax waaw yàlla nee na ñii ñoo ñu dëgg waaw ñi bàyyi seen kër bàyyi seen alal nee na dem topp yi yàlla topp yonent bi abandonné lépp nee na booy wut ñu dëggu ba daj ñii xamal ni ñuy ñooy lu dëgg te wax na dëgg ndax bi yonent bi di dem Médine am na ñu bari ñoo xam ni dañoo obligé bàyyi seen tool ñi bàyyi seen alal ñi bàyyi seen i njaboot waaw dem topp ko waaw dem topp ko te c'était pas évident waaw ñu dem topp yonent bi abandonné lépp waaw dem topp yonent bi waaw abandonné seen kër abandonné seen alal abandonné lépp waaw dem topp ko moo tax yàlla ni nag ulaayka humu saadiqoon waaw nee na ñii ñooy ñu dëggu su ko defee ñoom seen taxawaay boobu ñu taxawoon lu rëy la lu rëy la ñu déggoo yi waaw bi mu ko waxee Alioune Alioune kontaan ndax Alioune la mu daan ragal mooy xelal Umar loo xam ni bu yonent bi ñëwoon du am vision boobu mu am waaw waaw Alioune loolu rek la daan ragal waaye fekk na nag yonent bi moo leen jàngal sagesse waaw yonent bi moo leen njëkk jàngal sagesse. xoola ci safa wiitar rek bu ñuy julli ginnaaw ge yonent bi toog na ci jàkk ni léegi bu ñu demee bu ñu jullee gee ba noppi naafile sunu ñeenti rakka sunu demee kër ga sunu naafile ba pare ñu tëj ko safa wiitar waaw ñëpp dégg ko waaye mu gis àllin moom bu jullee gee rek julli safa julli wiitar waaw yonent bi xëy bis woo ko ci biir mbooloo mi mu ñëw mu ni fa àllin dama gis ñun bu ñu jullee gee dañuy julli ñeenti rakka waaw dañuy naafile ñeenti rakka suñu paree suñu demee julli ba pare tëje julli guddi gi safa witr waaw waaye ñu gis yow kii nga koy jullee waaw xanaa da nga dul naafile soo dem àllin ni ko dinaa naafile waaye comme safa witr damay bañ yóbbaale bor boobu ca barzax te wóoruma ndax danaa julligee ba noppi génn ci buntu jàkka ji daanu muy sama dee moo tax ma ni léegi damay julligee julli safa witr su ma àndeek bakkan ba dem ba kër ga ma naafile li may naafile su ma neexee nag tëjewaat ko safa witr